bu huit personnes yi wootee hmm. man danaa leen gagné ndax man xam naa ne dinaa leen gagné. est-ce que jëndaate am na ci jëndaate boobu moo doon dégg. jëndaate boobu ah. ba ñu demee ba toog ci salle bi ah. am ñoo xamante ne amuñu carte ministère ah. ma ne leen na ku amul carte ministère waroo wote. ndax journaliste yi yàlla nekk Ndakaaru hmm. gënuñu leen a xam. axe bi xam nga nag man dama jàngul euh, euh, français nag global tv nag ah. nag gaa yi abonné tey tey tey partagé asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm euh, képp ka nga xamante bi rek yaa ngi ñuy suivre internet bi di leen wax ne abonné leen tey partagé tey nag ñu fa fas yéene waxtaan ak président menaceur yi fii niveau mm, régional muy Sirnoxe Soudou Diouf suudu mi nga xamante bi nag wax dëgg yàlla su jógee làmb jóg suudu mi nga xamante ni foo ko gis rek bu laaj ci lan lay dox bu doxul ci ndigal rek mu ngi ci làmb kon tey fa moom lañ fa seenee waxtaanal ci li nga xamante ni moom lay làmb di doxe ak liy nekk ci biir làmb yëpp ci suñu émission bi nga xamante bi mooy waxtaani làmb fii ci Global TV di leen di leen wax li ni leen daan wax rek abonné leen tey partagé tey eh, ñu ngi dalal daanaan lu mag li suudu ñu ngi lay bégg bu baax baax di la ziar dina wax asalaamaaleykum ci Global waaleykum salaam wa rahmatullah njool sikkim maa ngi lay fay di nuyu waa àdduna yëpp di leen na ngeen def mbaa yéen ci jàmm di leen ñaanal jàmm ak xiwal ah di leen xamal ne nag ñoo ngi fii ci rajo Baol FM bi nga xamante ni wax dëgg yàlla tubaar fakkal la ñi ko yor xarañ lool ah, fas yéene fee def émission boo xamante ni ah ni ko njool waxee rek day leen dugg nag di partager njool sikkim tey abonné waaw mhm. kon bu ko defee yaakaar naa ne ci wàllu làmb la ñuy ñëwee mm-hmm. ah waxtaan ci loo xamante ne lu am solo lay doon lu yaatu lay doon muy diggante lambu ndakaaru bi nga xamante ni moo ŋànk euh, lambu Sénégal yëpp di CNG bi nga xamante ni moo ŋànk CNG yëpp euh, doog a wàcc si nag fii nga xamante ni mooy li nga xamante ni ñun ñoo ko moom muy njaareem mbay kii njool si kii jërëjëf jërëjëf juumuloo mais Soudou euh, fi ma fi ma bëgg waxtaan yow mooy ci li nga xamante ni mooy nii làmb di doxe gis nan euh, làmb saa fa jàllee rek règlement bu bees daal di génnaat ñu gis euh, en tant que président manager est-ce que li ma njëkk a wax mooy niveau national suñu def seen réunion yooyu noonu est-ce que ñu ngi leen di convoquer pour ngeen dem toog ci li nga xamante di waxtaan ak ñoom ci lii làmb di doxee ak ni bëgg làmb demee. waaw bu dee nag ci wàllu minacé yi ndax ñun ci wàllu minacé yi ñoo ñu war a woo ndax euh, bi fi baabu nekkee def ñu doon woo ñu dem bu ñu mënta dem ñun ñëpp am ñu dem waaye burxaan bi mu fi nekkee léegi ak man bi ma fi nekkee jéem naa ko woo mais dama koy woo sax du ma jël téléphone xawma lu ko waral. ndax kii euh, moo ma joxoon numéro am fale ci ci Mbour bañ demee drapeau chef de l'État dama koy woo muy sonné toujours toujours nga koy woo muy sone ba lu tolloo ko ay jours jëlul ma xam ne kii nekkul toujours dafa amul jot ma bàyyi ko wootuma ko wax dëgg yàlla léegi wootuñu pour ñu dem Dakar ci ay réunion déedéet wootuñu moom. est-ce que manque de communication boobu mënul yàq lu bëree bëri ci làmb. waaw manque de communication boobu. Burxaan mi nga xamante ne nii moom mi nga xamante ni mooy moo nekk président bi nga xamante ni mooy euh, Ndakaaru moo waaw national moo waroon a def ay jéego comme ni baabu daan def baabu da daan def ay jéego di woo nit ñi di wax ak ñoom mais Burxaan bu jàppee ne moom Ndakaaru rek la war a gérer du noonu ndax bés bu ñuy def wot ñun dañuy jóge fii dem sani suñuy kar kon yaakaar naa ne bu ñu demee bu nga xamante nii deme na nii warna top resoi réseau yi di len wo di len chambar di waxtan ak ñom ngir elek ndax tay lu dal ministère rek ministère yi ñep la ndax ñun ni ñuy doxé fi ministère bo xamanteni am nga fi xewu jam dañ lay taxaw muy leneen safaan itam dañu ñew taxawu la euh, njol sikkim hmm. jërëjëf euh, suru euh, tay ñu wax fas yéene waxtaanaat ak ci yow ak li nga xamanteni mom la CNG jël ci lamb ji ne day tel Euh, gis nañ ko macha allah euh, ci combat ba nga xamante moo doon dox ci diggante Tafatine euh, Tafatine ak ak Balla réussir nañ ko macha allah te jafe woon na nag pour ñu réussir lu mel lu mel noonu parce que yaakaar naa ne fukki combat ci genn tàkkusaan loolu yombul sama sama sëriñ. waaw yaakaar naa ne décision bi CNG jël muy Bira yaakaar naa ne ci combat defe naa Ada Fass la de. wala kan la waaw ci combat boobu la waaw defe naa ne ci lañ jëlee matuwaay yi waaye matuwaay yi ñu jël wax wax dëgg yàlla ñun kontaan nañ ci képp koo xamante ni nit nga te nite nga war ngaa xam ne lii ñu def keroog combat bala gay bi ak tafaatin Tine bi mu pare bu nekkutoon lii ñu def combat bi mën naa dem ba une ci guddi te du pare waaye lii ñu jël dafa baax ci askan wi baax ci mbër yi baax ci promoteurs yi baax ci amateurs yeeg ñëpp ndax ndakaaru boo fa taxawee eh, gaa yaa ngi taxaw di wut lu ñuy am ñoom itam kon teel bi mu teel wax dëgg yàlla am nañ ci loo xamante nii kontante bu mag la ferte lañ ko def it di ñaanal biraam yi nga xamante ne nii moom la yàlla def ca bopp ba foofa yàlla na ko yàlla lafal cat moom itam mel ni aussi tamit bi ñu jógee ci Dakar wala avant loolu doon am Dakar lamb am na fii ci Diourbel mooy journée bi nga xamante bi Ous production moo ko amal combat yooyu tamit mel na ni teel naa tas. waaw foofu bi xewee ba nga xamante ni président Etienne Ngom jot na kay di def maa woo ne ma neel menacé dimanche à 5 heures ñu tase sedeps ngir waxtaan ndax dafa am euh, lu bees lu ñëw ba ñu toog ci ñun ñëpp menaces yi ñëw ñu càmbar ko waxtaan ci ba déggoo ñu ne nag kon ñun itam dañ koy tàmbalee ci lamb Ousmane Naar bi lamb Ousmane Naar bi gis nga fi ñu ko defoon ni mu meloon waaye yàlla def na ba avant timis lam ji pare na kon taxaw nañ ci taxaw boo xamante ni Etienne Ngom it batul ndigal lay biraa di def mu ngi ko ciy dimbale ndax bu ko neexoon mu ne feekat ak fii bokkul reson fe waaw waaw fii resoo la fee capital la bu ma nee bu ko neexoon mu ne duma def loolu damay fii réseau la du ma topp capital ba waaye lépp la topp ngir defar làmb mu jëm kanam waaw. macha allah mu doon lu am solo mais fi ñu toll nii est-ce que euh, association bi nga xamante ne mooy menaceurs yi eh, ñu ngi amal ay réunion di waxtaan ci seen biir wala non. waaw association yi moom association menacé yi moom wax dëgg ñu ngi góorgóorlu ndax euh, ñu ngi def réunion ñu ngi waxtaan ñu ngi def euh, cotisation bu wax wax dëgg yàlla fi mu nekk nii. kees bi li ci nekk wax dëgg ñoo ngi sant yàlla bu baax waaw ci kaw ku sa ku am combat ñun wutuñu xaalisu mber ma nag minacer bi la ñu ne yow sa bu amee combat bu fayoo deux cent mille di nga joxe deux mille francs bu fayoo cent mille di nga joxe euh, euh, mille francs léegi bu fekkente ni da nga am juróomi combat di nga joxe cinq mille am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla gars yi moom ñëpp ñu joxe kon loolu ànd la boo xamante Ah, lu baax la ndax yenn saa yi bu dara xewee loo xamante ni lu ñu bët la te kees ba la ñuy def dem def ca la ñu war a def kon yaakaar naa ne loolu itam ànd la boo xamante ne ànd bu rafet la ah, Ndiol Sikki bi ba tey ci loolu tamit ñu fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xamante ni mooy am ci làmb ndax yaakaar naa ne ku ne làmb wala ku ne nit ne tolof tolof ku ne nit ne ay xat-xat souvent ngeen ànd ci biir ànd bi ngeen ànd ak nit ba mu am tolof tolof parce que da ngeen di génne ci kees bi seeti ko wala da ngeen defaat ay cotisation seeti ko. waaw maanaam bu ñu àndee ak nit ba yàlla def mu def euh, ay tolof tolof te ñëpp mënuñoo daje man mi nga xamante ni maay président bi dama leen ci dama leen di woo ne leen léegi ginnaaw demee na nii nañu xool nu ñuy def ba lee ñu saafara ko bu ñu demee ba daje nag ñu doog a seet loola na ñu koy delloo fi ñu ko jëlee woon noonu lañ koy doxalee. mais est ce que par ngeen pour teug ay lamb parce que dégon na fi sen lamb ju ngeen doon tëgg yene yene yene yéen menaceurs yi nga xamante bi yéen nekk ci raison bi hmm, waaw paré nañ pour teug lamb xeyna li nga bok ak li yalla dogal moo bokut. waaye yaakaaroon nañ ne dañ fi teug ñaari journée so bi doga tej waye xam nga jàppoon nañ fi lamb waye bañ jappé lamb ji tam am galankoor yu ci duggu ba lamb ja ah yalla mo def defatuñ ko waye fi ñongi waxtaan ngir fi ak bu lam ji côté yi màggal nga xamante ne lam ji ubbi naag yooyu bu neexee sunu borom na nañoo teg fii ay journée yoo xamante ni ay final lay doon ak journée yoo xamante ni lambu combat nommé lay doon bu neexee yàlla. Soulou hmm. euh, yaakaar naa ne fi tool nii euh, bu mala la bu ma bëggoon a laaj te fàtte laa laaj li ma la war a laaj te nga am loo ma war a wax lan lay doon. waaw fi mu ne nii moom daanaka li ma war a laaj lépp euh, jaar na ci yoon. waaw jaar na ci yoon. waaw maanaam managers yi nga xamante nii parce que tamit ci biir émission bi ci biir émission bi doon def nata wax wax nga ma ñaata président managers ñoo fi jaar sept sept sept président nga ma wax mais léegi yow yow nga huitième ba mais ci biir loolu dama bëgg nga wax ma euh, tey yéen yéen managers yi tey yi nekk fii Diourbel ñaata nit ngeen euh, nombre bi quoi waaw nombre bi fukki nit lañu ak ñaar fukk douze personnes lañu waaw cote la boo xamante ni bu suñu def nañ wara def lu ne mën nañ ko fi waaw douze personnes fu ñu nek a and tey bokk ndey bok baay xam ne lépp ñoo man mi nga xamante man la def may président menacé yi du sama ngóora du yala ma ko dogal ni ma la ko waxee barek ca émission ba rek keneen dinaa fi jóge keneen ñëw ndax sept personnes jaar na fi huitième personne bi mooy man la kon yaakaar naa neefeem ba dana am ba dixième ba ba ba ñuy dem vingt kon nañu gën a góorgóorlu te jàppante te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi. li ngay waxaat waa lambu Diourbel euh, pour seen taxawaay lan lay doon. li may waxaat waa lambu jurbel ci Etienne ngoom laa koy tàmbalee rek gaynde ñaloor la bëgg na li muy def li tax mbay Diaw euh, yëkkati ko jox ko ko euh, xam na ne mën na ko am na dignité ba am na cawarte ga am na bëgg-bëgg ba. njàng ma itam mac na ca ndaw kaar macha allah yàlla def na ko muy koo xamante ni wax da yàlla wàllu kayit wàllu big moom jaax jaaxlewu ci. kon lama koy gën a ñaax mu gën a góorgóorlu ñun ñi ne ci ginnaawam ak équipe bi mu yor ak yéen ñi nga xam ne yéen ay euh, média média yi ngeen gën koo jàppale. ndax euh, am na foo xamante ne nii mënu faa yóbbu boppam yéen yéen ko fa mën a yóbbu am na foo xamante am na loo xamante ne mënu ko. moom kese équipe bi mu àndal ñoo ko mën ak moom am na loo xamante ne ñun ñi menacé yi ñoo ko ci mën a dimbale kon ñun lu ñu mën ci moom ci lu baax bu neexee suñu borom daan ko ca jàppale. mandat bi laa la bëgg laaj parce que tamit mandat bi xam nga dañuy ay mandat un an mandat deux ans mandat nangam ak nangam yow mandat mandat pour président bi ñaata at lay doon wala ñaata weer lay doon. non mandat bi ñaari at la. ñaari at ñaari at mooy mandat bi waaye man. xooluma ci mandat li may xool mooy liggéey li ma war a liggéeyal làmb danaa ko liggéey su ma ko liggéeyee nag ba nga xamante ne egg nañ foo xamante nii gis nañ sama liggéey ne toogal ma mën a toog dinaa toog su ma mënta toog it dinaa leen ne nag keneen ñëw ñu feete ko ginnaaw te jàppale ko. mais yow mais yow est-ce que est-ce que ak ak ni nga ni nga ni nga ni nga nekkee ci làmb ak li nga nekkee ci yeneen liggéey parce que man xam naa la am na ñu la xamul ndax yaa ngi yëngatu ci yeneen leneen est-ce que boo demee ba benn instant. Eh, maanaam eh, eh, gars yi bëgguñu laa waate te sa temps mayal la ko nan ngay def. waaw bu boobaa su ma eggee foo xamante ne nii bëgguñu ma wàcce te maanaam jot ba mayeetu ko foofa waxtaan lay doon rek waxtaan lay doon nga xamante ne nii dinaa am koo xamante ne nii ci ñoom moom moo fi nekk rek waaw ndax lu ma fi mun ñoom mën nañ ko fi lu ma fi mun ñoom mën nañ ko fi mën nañ fi lu ma mënul sax waaw. kon élection yi foofu tey buñ koy wootee élection yi nan lay deme waaw élection yi nag euh, bi ñu koy wotee euh, dafa bari woon coow ndax waaw dafa bari woon coow ñi ànd ak euh, kii ñi ànd ak kii. dégg naa sax am na ñun ci jënd ah. waaw dañ doon jënd est-ce que jëndaate am na ci jëndaate boobu moo doon dégg. jëndaate boobu ba ñu demee ba toog ci salle bi am ñoo xamante ne amuñu carte ministère man ne leen nag ku amul carte ministère waroo wote. ñu woo waaw waaw léegi fekk étienne dafa dem dakar pas iba moo fa nekk biñ ne biñ waxee noonu ñu am ñu géni xaalis jëndal ay nit carte léegi léegi ma ne leen mënuñoo toog ba tey tey ba ñu toog si salle bi war a wote ngeen di jëndal ay nit carte loolu du mën a ne ñu bañ loolu étienne ne loolu du am léegi muy huit personnes bi ñu wotee ku ne am carte ndam dékkul ndam dem dikkul waaw ñu ne léegi nañ ko piil man ma nangu ñu piil ko ñee nangu ñu piil ko. mais est ce que doon xalaatu ne woon na da ngay luxus quoi. <laughs> déet. loolu yow tey fii ñu toog nii tey bu la neexoon. nga tem ni sa loxo bi génnal moo diimi. loolu dara ci yow mais est ce que ne woon ne da ngay da ngay luxus affaire bi quoi. mu mën a doon rek ku ne moom ku ne moom ndam rek ngay wut. ndax booba jaral na ma jaral na leen. Ah. léegi bi ñu defee noonu. ñoom ñu daw. ne daal duñ ko piil daal di ñibbi. Etienne ne léegi da ngeen di bàyyi ba dimanche ba ma ñëw dimanche ba ba mu ñëwee fekk ñu amutoon carte daal di wuti carte Etienne ne leen nag yéen ñi wote wutoon du ngeen wote waat kon ku amutoon doo wote ku bokkutoon ca wote bee doo wote léegi ñu ne euh, huit personnes yi ñooy wote ah gars yi doog a xam ne bu ñu huit personnes yi wotee man danaa leen gañe ndax man xam naa ne dinaa leen gañe ñu doog a dem gise ñoom ne bay nañu nii daal la yëf ya demee woon waaw ñu daal di ma fal nii laa faloo waaye li ma gënaloon ah. ñu dem ci urne bi wote looloo ma gënaloon man. mais mais boo gisee kay ni la fale mooy yaa ñu doy. yaa ñu doy lan la fale quoi wala ñàkk pexe lan la fale. Ah, waaw kenn xamul ni mu demee waaye ba mu amee itam wax dëgg yàlla a ah, yàlla def na ba ñoo ngi waxtaan am na ñang ñoo xamante ne nii lii ma la wax nii ci xaalis bi bokkuñu ci ndax seen i mbéra ngi béré te joxewuñu xaalis. waaw am na ñoo xamante ni waaw ba groupe bi ñu ubbi bokkuñ ci groupe whatsapp bi itam waaye ñu ngi ñu ngi waxtaan nag di mayante jàmm di nuyoo di saafante daal. mais est-ce que seen doole est-ce que seen doole est-ce que seen doole du ngeen ngeen ngeen ngeen ànd booloo euh, pour mën a mën a ànd liggéey parce que tamit yaakaar naa ne euh, lu ngeen gën a booloo gën a am doole. waaw mooy say bu dëgër ba rek. bu fekkoon dañoo boole ñun douze personnes yii dañuy gën a am doole te lu ñu bokk yàlla mën nañu koo gën a jàppale ba loola ñu am ko waaye nii ñu def ñii di ñëw ñii ñëwuñu ah xëy na dina ñëw nag ndax koo wax mu ne dina ñëw waaw loolu daal foofu lañ tollu njol sikim mais kàddu gu mujj lan lay doon waaw kàddu gu mujj gi di sant eh, waa njaareem di leen nuyu di leen ñaanal jàmm ku fi yeewoo yal na defal jàmm di ñaanal mbër yeeg amateur yeeg waa CNG beeg yéen ñi nga xamante ni comme ni ma koy waxee rek yéen ay yéen a yor média bi di dem di ñëw yal na leen yàlla gën a jàppale ba fi ngeen bëgg a egg ngeen egg fa ndax journaliste yal na yàlla nekk ndakaaru gënuñu leen a xam axe bi am na ci koo xamante ni ndakaaru lañ fee lañ daje euh, mbuur mbuur lañ xamante waaw waaye yàlla dogal na ñuy dem a dem a dem di jappalante muy ñëw ci man ba fi mu ne nii mu ngay dem ay mission kon loola yéen ñi jomb leen yàlla mi nga xamante ni moo yor lépp dina leen ko defal waaw njool jërëjëf. kon del wax euh, gars yi Global TV ñuy abonné tey partage Global. Global TV xam nga nag man dama jàngul euh, euh, français nag. Global TV nag nag gars yi abonné tey tey tey partagé waaw nañuy abonné tey partagé ci Global TV jërëjëf. Baye Fall bi kontaanee nañ la. jàmm ci yow. kon mbokk yi ni leen ko waxee woon rek leen leen koy waxee ah abonné leen tey partagé Global TV wër na adduna. waaw képp ka nga xamante bi rek programme boo mën di am boo ñu ko woowee rek dinañ ci ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam abonné leen tey partagé sant nañ ñëpp gërëm ñun jaajëfaay Mor